benn girl gis nañ ne moom dem na final fleur au brin cette année mu ngi tudd Dee Freezy Dee Freezy euh, lan moo tax la nom Dee Freezy bon Dee bi sama neem la Freezy dégg la moom Freezy am ni mooy li nga xamante ni dafa fresh te mooy loolu te man xama rek sedd su ma neexee man neex waaw te jigéen moom waaw da war di mel aussi nga xamante ni noonu nga fil te aussi sa nem aussi yaa ko moom bu la neexee tuddee ko nu la neex man maa yi Freezy yi en anglais jarul ma koy décortiquer ñëpp xam nañ ko di bi sama neem la yes. nga nekk biir euh, ba pare nga nekk girl en tant que rappeuse. Euh, waaw loolu dafa ma def bandi may ma courage gën ma yokku parce que man dama bëgg fépp fi may nekk ma nekk fa man kase parce que maay number one lady donc yoon la. ci bi ci ay biiru góor ma rax leen loolu dafa may neex di xeex ak ñoom di jaayante ak ñoom waaw di xëccook ñoom la différence yaa ngi waaj sa final et comment. <laughs> waaw ñu ngi koy waaj bu baax ñu ngi répété normal lépp lu ci war def nañ ko di xaar jour yi waaw yàlla def li gën ñu jëlee lañu moom ñibbi si géejawaay incha allah. kon de géejawaay. en tant que meuf. <laughs>